www.sangatv.com ñu jàll ci anniversaire yi c'est ça donc anniversaire u eh Mame Diarra bu euh, seen petit galle All Star All Star mm-hmm. anniversaire am tey la on lui souhaite ah, beaucoup de bonheur c'est de la part de maman Teddy sama sët la ndax euh, maman bii du maam jaara bi bii du maam jaara ki beneen maam jaara la bon d'accord ok de façon nañ ñëw ci photo bi euh, bu ca kanam mais moom même bu ñu tegul photo am xàmmee nañu ko tey tamit la anniversaire u maman c'est de la part de ta fille Ndeye Marie Étincelle Couture ak euh, toute la famille donc maman photo bi dinañ ko teg mais plutôt ñu jàll ci maam jaara bi ki tamit maam jaara lu tudd maam jaara ñing on lui souhaite un bon anniversaire c'est de souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à ma nièce Khadija, c'est de la part de ses oncles et, tata depuis Saint-Louis. Ñu ngi koy souhaiter euh, beaucoup de bonheur. ah donc Khadija joyeux anniversaire c'est de la part de ay tonton ak tata euh, nekk sa nekk Saint-Louis joyeux anniversaire Mami Kébé décorateur c'est de la part de euh, Maman Lakan Mbaye ak Penda Kébé mami kii mooy mami Kébé. décoratrice. mami Kébé décorateur loolu la ñu bind de mami Kébé décorateur du bi ok mami Kaba décorateur as a little baby. ok thank you so much donc euh, ñu ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire euh, joyeux anniversaire euh, bébé Djibi Ndiaye. Euh, euh, Allah protège, te protège euh, de la part de Maman Mada depuis mille ans. Joyeux anniversaire à depuis Paris, qu'Allah te donne une longue vie, beaucoup de bonheur. Euh, depuis Paris, c'est de la part de ta maman. Joyeux anniversaire à Maman Ndiaye qui fête ses 12 ans. Longue vie à toi de la part de papa ak maman et les jumeaux. Joyeux anniversaire <laughs> à Mati euh, Fabienne Ouattara qui fête ses quatre ans beaucoup de bonheur pour elle tëgg tëgg tëgg tama di waxut waal di lay def nii a ah, yàlla baax na yooyu yëpp mën na nekk yàlla yàlla waxu kenn dara voilà et je regarde en même temps les messages n'est-ce pas yooyu na nekk donc moom euh, Mati Fabienne tey la anniversaire am joyeux anniversaire à mes deux jumelles d'amour euh, je leur souhaite euh, de tout cœur santé et bonheur santé et bonheur demal yow voilà santé et bonheur li yegg joyeux anniversaire à mes deux jumelles d'amour je leur souhaite tout de tout cœur santé et bonheur de la part de Anta Mbenga do bëri joyeux anniversaire à Papa Chon alias euh, Alassane Cissé c'est de la part de sa mère Adja Mbissine Samb joyeux anniversaire à Doomu Ndeylo de la part de Nogay Pikine joyeux anniversaire à Madame Gadiaga doomu ndeyu Yams Lukaar longue vie à toi de la part de Yams joyeux anniversaire à la plus lacalée des All Stars Euh, ma tupu une carrière infiniment belle mama tata. tata maman mooy maman Tene. Ah, tata maman Tene d'accord ñoom samay sët parce que Tene Tene daal sama la Tene donc mooy souhaiter bon anniversaire à Mam Diara. joyeux anniversaire à notre choupinette euh, bébé Marie-Thérèse Philomène Ngom. qui souffle sa deuxième bougie c'est de la part de papa Barthélémy Ngom et maman Pauline Mendy Ngom Barthélémy bu RFM c'est ça ou bien ou on ne sait pas d'accord on ne sait pas donc xëy na Barthélémy est euh, tombé si c'est le cas c'est notre petite nièce joyeux anniversaire à Safiatou Diao euh, longue vie joyeux anniversaire à Adja Marème Diouf de la part de Awakati et sa mère Seynabou joyeux anniversaire à Khadija depuis Nice joyeux anniversaire à Binès Binet Bennett Samb Chopard de la part de Mado. waaw donc Bennett Samb c'est une grande sœur à maman Degen on lui souhaite un happy birthday et surtout de la part de ses enfants Biram ak Ashley Ndiaye. anniversaire à ma belle-sœur Mounas depuis Paris c'est de la part de ton mari et de toute la famille. joyeux anniversaire à Astou ma cousine chérie de la part de Maggie ak toute la famille Koulibaly. joyeux anniversaire à ma moitié Binette c'est de la part de Bijou Mbëgge ak Anta. Ama. Ama. Ouais. voilà vous êtes donc euh, une des siamoises parce que ñun dañuy wax ay siamoises même depuis qu'on est toute petite on est ensemble. Binette ouais Binette donc suñu Binette voilà donc euh, je l'aime énormément elle c'est ma sœur ah. maintenant nekkatul sama xarit euh, et on lui souhaite un joyeux anniversaire de la part de la famille Lo depuis fii Paris euh, de la part de sa maman Tapenda Ama Mbege de ma part Pape Doudou te souhaite un joyeux anniversaire Binette bu Youssou Ndour joyeux anniversaire Binette bu Youssou Ndour voilà <laughs> je je t'aime je t'adore elle est juste euh, euh, ci ñi may woo bu ma nit la. voilà ñooñu ngay yeeg 2 heures du matin ne leen kil naa kenn ñu ñoo jàppale la. moi aussi je t'aime voilà moi aussi je t'aime. merci elle est trop chou. voilà donc joyeux anniversaire joyeux anniversaire e Binette et Lo euh, Tapenda. waaw Zeyna c'est sa cousine aussi elles sont nées le même jour donc Tapenda yaayu Zeyna moo leen di souhaiter ñoom ñaar ñëpp un joyeux anniversaire. aussi. Uh, my sister de la part de Fatima Seck ak uh, toute la famille en fait Pape Doudou bind yi nii la mel wan wan ko ko liñ may bindal ci anniversaire yi regardez donc di ngeen comprendre pourquoi du ma mën a lire <laughs> c'est juste ça kenn xamul donc du coup j'ai toujours des problèmes pour di ko lire parce que bindam yee mel ni ay vermicelle coincé voilà comme ni par terre dans l'anniversaire ñoom daal dañ maa bañ rek bu ñu ma anniversaire nii la koy bindee regardez encore regardez comme ni euh, écriture merci donc du coup je peux rien lire fii la ñuy jaaree jeexal euh, yeewu leen ni oui tour de table kuy tàggoo